moytu gaaran raxas leen xol yi yàlla xaar xaar waay su ma la arrêté nga taxaw. baal sa affaire yi ngay def waay. kilif nu mu demee ñaambe. ça booy yow yàllaa la indi quoi billaahi booy gis nga fi ma toog nii lu ma jënd kafe sax aw ma boo ma xoolee sax xam ni damaa sonn nekk ci crise économique financière bu graaw. la ma yoroon yëpp nangu nañ ko amatuma dara te yow xam naa ni ku baax nga amoo benn problème te ku am jom nga quoi man fulla gi nekk ci yow ak personnalité gi nekk ci yow yàgg naa ko estimer xam naa ni booy euh, booy bu gentil nga léegi nag ñaambe yàlla man kaana lillaahi kaana laaw loxo mhm. ku nekkal yàlla yàlla nekkal na waaye it man kaana nit kaana laaw nit ma bëggoon fi sabili laa nga dimbali ma rek nga embauché ma ma nekk sa apprenti man mën naa lay wàcceel xorom seeg suukar seeg saabu yëpp yooyu yëpp du problème loolu daal laa bëggoon nga dimbali ma ci rek ndax son naa trop waaw waaw. non yàlla du nit. Hmm? yàlla yàlla du nit te ak a juste ah xamoo sunu borom fii lay attee gars yi ñu ngi naan yow mal xiyam. mais atteem fii lay commencé fii. non génnal ci loolu waaye. non mënu ma cee génn. non yooyu bul fàttali. sa mm, kilif gis nga lii bu amul woon man ma xam ne kenn juruma lawwee ma yat wala man doomu takkoo laa yow ni ma def si diggu Cees gii. non lii lii lii lii mënul ñàkk. non boobu yëpp beew la rek xam nga beew nit la boo beewee da yaakaar ni asamaan si dee daanu sa mën nga ko téye. dëgg la waaye ngi lay jéggalu lépp lu ma la mës a def ci lu rek jéggal ma ko rek. dëgg la ma bëggoon daal man subaa sax mën naa xëy boo bëggee mën naa def huit heures ci suba ba huit heures ci ngoon. Hmm. waaw hmm. moto bi sax mën naa koy raxas. loolu yëpp problème loolu yëpp dëgg la. waaw xam nga da ni loolu yëpp beew la woon boo amee da beew. Hmm. da nga war a xam ni man fu mu toll nii damaa am faw ma beew. waa Ndiaye da dem ba ñëw laa ilaha illallah yow lan la ba jàmm non lii mënut nekk non lii moom lii munta nekk lii mënut nekk tombe mënul nekk lii mu yéer yéer yéer yéer yéer mais yow da ngay wax te sa lii ngay def waxal lan moo xew ba jàmm non non maa ngi ñëw Ngoné maa ngi ñëw maa ngi ñëw Ngoné yàlla moo ñu dimbali Ngoné yàlla moo ñu bëgg billahi li moo tax xale buy bëgg ñun mag ñi faw ñu dox ci ba xool laa ilaha illallah famille xale bu jigéen bi dama leen a xam bu yàgg ci village laa leen xamee woon village bu sori ñu dàq leen ci village ba ñu ñëw ci biir dëkk bi moo nit ñi kenn du leen laal kenn du leen jege seen famille baaxunu papaam dañ koy tooñ yaayam ji astafurla ay ngaari wàññi sa gàlla ñu jam la dëgg la dëgg la man du ma wax man du ma du ma kéewantu ci yooyu xam dama leen bu baax dañ laa coob yow damaa daw génn kër gi damaa daw génn bi ma nee daga ci biir kër gi papa ji yaay ji ma daw génnaat kër gi amul lu may wax ak ñoom njàmbe nag mu may doog a tooñ musuma tooñ yokkute weer wi dët bale boo jënd nu nu damm ko wala nu xanaa ah, na damaa defen ñaata yoon weer wi mën naa ci jënd ñeenti yoon ay bale eh. waaw keleet eh, eh, kaay ni nga def nii mooy lan. papa li ma sol la ma ni waxuma li nga sol laa wax nii nga may nuyoo nii nga ma daan nuyoo boo daan déparé fa la noo ma daan woowee daaw ma wax dadi ah tëb kott ma akolaat nu kat foofu di di di di ree tey nii nga doxalee mooy lan man kaleer sa jikkoo sa jikkoo ngi bëgg a soppi ko ah sa jikkoo ngi soppi ko te dinaa la xamal ñaar li ngay muñum muñum yi yëpp yëg li ngay dox sa la bama doxé doxee duxu ba ma wëree ndax dégg nga ma waaye nga nek nan dagay ngay ak mom bu yaboon na nga ko teel a teel rocc ci xel mi set ci wécc dé na ci dëng de man sa bay anduma ci tay anduma ci ëll te duma ci mësa and papa dama ko bëgg. dama ko lan fexeel ah bax na may sa bay ah do ko bañ da nga fexe nag noo ko bañee nam gëna gaawé ndax may mayé té duma la ko bañ papa yow am na diine. manen ne nam yow na am fraternité je m'en fous nga am na diine lu sama yon damaa xool loolu kooku la ma séq ak baayam ma xam ko fa ma jaar ak baayam moom gone la xamu ko yow gone nga xamoo ko baayam ñoo nekkandoo woon ca tund wa baayam xamoo xam te kewal du tëb doom jabët dawal diggante toog benn ñebe gàddaa fee xaal na mbaat tuube ak xor laaj mun la na nangam ak nangam mosu faa def lu baax lu bon dong la fa nekkee woon ma xam ko bu baax ñu am yu bëree bari yu ñu seqoon man ak moom man ak baayam ñu am lu ñu seqoon ma xam ko xam jikkoy jaam ja jikkoy workat ja jikkoy wuruj ja jaxasakat ja baayam yor te ma ni doom ja baay baa clair li ma lay xamal mooy kooku bis na tey bëggatuma koo dégg nga ngay ñaan di ko génn ci sa làmmiñ wi ci biir kër gi té dina la xamal né mbëkk bi nga ma ba tay mu ma def trauma. way non kérok bima koy def xam nga li ci duma won sax. waaw booba maa ngi doon nan ay whisky ak affaire yoy mais yoy yep bayina ko. amatu ma njëg gi sax. légui li ci do li ci nga légui bama xolé kay xamni man euh, dama sama bët yi gisoo ni mu duggé non gis na ko léegi lucide nga. dama grip ni sax ay garap la bëgg. li la tonto tontoo ma si lucide nga légui waaw lucide na kay légui man ma illicide. man ma nan man. kilif ya. yow man ma jël sama moto bi nga liggéey ci buma namé def lool nañ ma woyé takko wala ma doon doodaan oto yi di jaar sama kaw. ñambe ñambe am dara. waa defal ndànk rek am yee sawaay. yow wuy ma bul def loolu ñambe sonn naa quoi <laughs> wuy ma dimbali ngir yàlla rek tax fi sabili laa dama lay saraxu nga dimbali ma nga embauché ma ma liggéey ak yow may am dara yow jullit nga quoi te kin ñu la tuddee dégg naa ko baax la alaaj ñambe mm-hmm. yow mënoo bon ndax sa trondo sa papa sa yaay dimbali xool ci yàlla ak yonent bi ci barke jullit nga jàmbe yooyu tam. yow kilif loolu yëpp xamoo ko woon yow loolu lépp xamoo ko woon yow waxuma embauchement de mais journalier sax mënoo ko am ci man. yow kilif da ngay noppi ma wax. boobu ba tey yaa ngi téye maag bi di wax boobu ba tey bàyyi ma man maa wax damaa appauvant yow li nga def si digg town bi yëpp yow di ñor di loo nekkul di diwa loo xam ne xeeñoo ko naan may temps yi damaa daan détournement de situation yow mosoo am situation faiseur de malin yow togaar nga. jomba ñaaw bi Pape Diouf di way naan gars yi moytu leen jomba ñaaw yow a taxoon si yow la inspiré woo pour way way boobu noonu yow da ngaa bon amul loo deful si digg cees gii yow xamoon nga ne lii dina am dama la jox benn conseil Mafal mu ngi recruter woo ko mu dimbali la bàyyil moto bi. waaw defal naag bàyyil moto bi damay Mafal këram laa nekk. waaw bàyyi ay douche la may raxasloo di ma yónnee ay saabu jabar ji di ma yónnee ay nete ay affaire

da nga ko yow santal ma comme que jël na la ngay raxas duus di bale këram santee ko man bu doon man dàll doo ko bomb puusal damay dem ñambe ñambe ñambe xanaa déggoo man kaana nit kaana laaw nit nee naa la ci début boobu man kaana lillaahi kaana laaw lowoo di ma te yàlla rek bàyyi mbay sama moto damay dem sama yoon ñambe bàyyi sama moto damay dem la koy ñaan bàyyi sama moto damay xale yi ñooy dem ñooy dikk ñooy indi indi na fi loo xam ne nag boo ko validé yow moom da yow moom yow moom garaawul yow moom amul problème ah, yow moom dan la buñ ñoon duñ dugg ci kër gi di ma xool te te duñ la coob yow yow la niy coob bu nu suur ñu doog a ñëw ci man mais yow la niy njëkk a yaasa yow dama lay wax nag <laughs> ah. bu dee bëgg nga lu neex njàmbe ba topp ko yow réeru bukki ngay doon buñ ma yaasaa ñu pay laa la yow man man man luñ may def hmm, pay laa la ñuy togg mais yow kay validé sëy bi boo koy validé ñu lay reere man wax naa lu leer nañ man moom pare naa ci pare naa ci yow nak na nga ñak fayda ba xalé bi yey sa nop ñi famille bu bon lañu baaxuñu wax naa la ko de xam naa leen bu baax papaam ni ma ko la ilaha illallah eh. yeb ngari non njambe njambe arrête man mom tolu mako ma jibi ah dama lay wax rek deet man dama lay wax waaw léegi nag léegi comme ko la jibi wala njambe yow ya, yaay yaayam nga expliqué ya, ak moom famille bi ak sunu famille mun ñoo ah wax laa la wax de si que ma xam nga lu jaaxal ñàmbe dafa dëgër bopp commencement ba waxoon naa la ko nee la nañ takk ci sëy bi ci si mbiru mbokk yi mbokk gi mën nañ cee am loo xamante ni buñ dee sombi sombi buñ dee xeex xeex buñ dee reyante reyante mais dara kon li du dama bëgg yow tamit ma bëggante yaay ya ni bëggante ba sama yaay doo bàyyi ah, waa léegi man daal am naa man daal damay bëgganteeg sa yaay ba jur doom doom ji di doom ju baax ma war koo teg ci yoon wu baax doom ji moom ne non yoon wu bon lay jël tu vas poursuivre le mauvais chemin ah tu vas poursuivre le mauvais chemin suivre les mauvaises personnes son père n'est pas un du gor jaam bu bon la te nit ku yées la dana ma ni na mujj ma ni na mujj tey ma waxati sax am lu ma metti may wax nga cay teg baat ndax dégg ma la dégg bax ni ma la wax bu ma nga waxi waxe ma lolou may lan ah yaa ngi nii li ma ganteeg amuk coppiku joxoto ma cer bi war nuyootoo ma nak ma daan nuyoo koku nit ku bax la ah ba gerte sa yaakaar yaay ak sa yaakaar yi baay nga bëgg man jër sa joy la wax bis na tey bu ñu ŋaan tur wo ci bir kër gi bu dé kër gi mako mom maa ñàkk sama ñàkk ba mool tabax li ma neexee am ci biir kër gii dégg nga ma. dëgër bopp ba bëgg dee lii moo ko yóbbee boppam. lii moom moo ko yóbbee boppam moom la rek. na ko na ci teel a génne lii moom na ci teel a génne xelam ba pare papa ji waxuma dara non man man dañ man man deewoon naa man deewoon naa ngoone deewoon naa ci miir bi laa jaar deewoon naa yaay ji tamit. man de ma deewoon xaw deewoon. waaye ya ilah Iya, yaayam man ma ñëw dugg si yaay ji naan ma na nga def sëñ bi ça man mais di di ma commencé làmbatu na nga def sëñ bi foo jógee ma ne ko ah waaye yow def nii waaw fu nooy sëñ bi na nga def ah yow mi de moom macha allah yow looy nan ma xanaa ngay le yow mi ma nag ay sama jabar moom xanaa nag da nga koy jàpp rek reerat yée ngoone waxal oysa oh, ma lay dama lay wax rek kenn du ma ah dama lay wax rek man yooyu moom dinaa la xamal leen de da nga yaakaar ma sama yaay nii la ma bàyyee nax nga sa bopp man dañ maa defar de man doomu soose ak tukulóor laa dañ maa defar kenn duma laa kon yow ngoone ménage boobu nga laa ilaha illallah kenn duma laa ak ah, ñoo sore gis nga man yow sa papa mooy soose wala sa yaay déggoo ma de loolu bu ko lijjanti ñaar yëpp laa dama laa jur ci farata si yàlla ak sunnas Muhammad sa cuukal bi nag kenn ma pour que rek nga leer nañ di gis lu bax ndax dégg nga ma bu ngay wax xam ci nga force ak wisaar yi ku di dooleeram ba gisati nga tudd waa di warkat Siakang ak moom bokk ak moom ay teranga mu war nako na ko coppet te jigéen gu ma sa xam mom bayam da ko liggey da mom bayam day liggey ay jigen tak xam nga reenu Dakar reenu tol xam nga li ma reenu mad mom lañ jàmb sangé moko man gis nga ding ma ma la wax yow do ñaan ma yaw bari nga tiaf ka de man duma yow noonu nga bëree boleh raka yiñ la boole raxase ya yëpp yow cafka kese nga bu yoboo nga reculer de dugg ci kër gi toog fi ndës bañ a sa goro bi moom bu ñëwee di nga xam ne lépp dëgg la njàmbe nag woo ko nga expliquer ko lu clair dugg na ci famille <laughs> hmm, ma dama lay wax rek man yooyu no dama lay expliquer rek non man dama jël yow yaa am goro boo xam moi je prends mes gardes lu tubaab bi di wax goro boobu man ci de dugguma ci bu ñu na wax lu clair ne ko sa papa yëg yàgg na ci réew mi li xam xamoko limu dox doxoko gis na fami bobu xam na len wa fami bobu ay. te maag yow yalla def na danoo xaw a kii maag yow danoo no xawu ndar yow musal ma. ah det ma yow yalla gis dama lay wax rek ñeent mu jappé dañuy ni yow mo ngay ce que moom kay waxal ak njaam non du ma bi ñee ñooy kii. mais nga topp ma naan ma bii bii ma sha allah yow lan la. yow moom bo demoon do ñewat زين أهم السابق من فاتو نانا خلالا من كي مات ما دفن دبا صلى الله يري ولا فات أي تراب بيسا بيولا وجيل ñu xamne man soppé ko man lolu tencé ci man len la lay ma faal sama ma faal la su dañ ko koy xam nga dama la wo ci njekk ak karang comme nang wo ma dégg dig ma dégg gis nga ma faal sama ma faal la dama ko bokk ak ken da suma ne la yaw ding ko bàyyi rek ding ko bàyyi xarit nga ken kenn weddul ko ni lay def samay beut samay rongo mi ngi sibiti biti ndax sama bop bi moy nek di wëlbatiku may xalaat sa su nek ndax yow dama xam fi nga ma tek di ma wax ay waxuma faar parce que heure boo ma ko waxee su ma la waxee leneen da ngay dute il est temps nga yeewu sa bopp bi keneen parfois sama xaritoo ak yow damay jaaxal daal à chaque fois ma woo la pour solution noo def comme tuddee ma gënaloo ma kenn waaye li nuy war péncoo nan ko waxtaanee ca waxtaanukaay ba. mais ma faal boobu ko amee si boutique bi c'est parce que man maa ko ko may. amul ku gën a xam ma ci kaw suuf ku dul man ñooy bokk fanaan c'est mon cousin sama deret la nekk. ak li ma wan il m'inspire confiance. Zeyna dafa jot nga xam benn affaire ma dafa bëgg jigéen c'est un coureur de te li ma bëgg a waxtaan ak yow bëgguma ngay dem ci dëkk bi di ko dégg moo bëgg man mu génn sama làmmiñ génn sama gémmiñ nga déglu ko say nopp ma fa lenn mooy objectif am day xool jigéen ju am mu dugg ci moom bëgguloo ko boppam miinal ko boppam jël lu mu yëpp dem yoon gis nga sama diggante ak ma mayuma mbokk sax mu wax ci ba may may xarit mu si wax naa jàllale yow xam nga ne man mënuma laa la